la mat la waaye lu dàq li kon daw leen gaaw bala moo jeex téléspectateur u Sen TV ñu ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk moo xam biir réew ak biti réew amaat mbégte toogaat ak yéen fii fas yéene leen gunge ci événement de taille bi nga xam ne moom la ñu jëm ay guddi la yoo xam ni guddi yu màgg waaye tamit ay bëccëg la yoo xam ne bëccëg yu màgg muy guddik sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xatma nabi imaamul mursalina borom barrière or ba ca madinatul munawwara ci ay guddeem la ñu nekk waaye tamit ci ay bëccëgam la ñu nekk bés yëpp nag moo ko moom rawatina nag mawludu nabi ñu ànd càkk këru tariixa yëpp nag waaye tamit rawatina këru diine yëpp nag ñu fas yéene màggal guddi goo xamante ne sii képp ku ko màggal képp koo xam ne yaa ngi ci lawraat yi képp koo xam ne yaa ngi ci eh, ay xéwal ak i di ko jox day gën a yokku rek waaye du wàññeeku mukk ndax borom guddi gee ni mel mel yàlla buur bi subhanahu wa taala moo ko faral ba tax na mu ne ko lépp loo xam ne sàkk naa ko maa ngi ko sakkee ci sa barke yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam D-Media seen TV nekk télé bi nga xam ne événement bu ñëw rek ñu ànd ak ak yéen jamono ji nag mawlud la ñu wax ñu ànd ak yéen ci mawlud bi li ko dalee ci burdu yi guddi yi ànd ceeg seen i invité euh, préféré waaye tamit ànd ceeg seen i waykat yi nga xam ne taamu ngeen leen ci guddi gi tey nag dafa am ndaanaan bu euh, mat ndaanaan koo xam ne jëmmam dañu ci gis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax olof dañuy kéwal du tëb doom jëbët tey jii ñëpp danañ bëgg danañ def yóbbulu gàmm waaye tamit spécial gàmm ànd ceeg oustaz Mouhamed Mbaye Jamil mi nga xam ni sama cofeel ak moom mi ngi daje ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaa saydi maa ngi lay ziyaar baax a baax baayu xale yi <laughs> maa ngi lay delloo ziar alaaji tabaarakallahu ni mooy neex na lool baayu xale yi eh, am naa ci mbégte lool ñaanal la jàmm ak salaam ak sutura yàlla daal di la ko defal waaye nuyu mboolem koo xamante ni rek waxtu wi yaa ngi jàkkaarloo ak ñun ci yóbbalu gàmm na spécial gàmm bi nga xamante ni Cheikh wax na ko léegi moom moom bëccëg yi moom moom guddi yi waaye tàgge boo gis am na jàppal diw nag fukki fan ak eh, ak ñaar ci rabiul awal nag ku ne xam ne ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy borom ba tax na tey Cheikh dina neex waaye dina gën a neex nañu doxal. dina neex dina gën a neex euh, Sen TV dina ànd ak yéen euh, ci événement de taille bi nga xam ne moom la ñu dëgmal danañ ànd ak yéen foofu ca Medina Baye waaye danañ ànd ak yéen foofu ca Tivaouane danañ ànd ak yéen fii ci Massalikul Jinaan danañ ànd ak yéen ca Touba. waaye tamit danañ ànd ak yéen ci Ndiassane ànd ak yéen fii ci kër maam Seydina Limaamul Mahdi yu fii ci yoof donc gàmm gi dafa yaatu waaye tamit noonee la ñuy ànd yéen tamit ba fi nga xam ne moom moo di ngumba ngewul ndax njabootug maam Cheikh na Cheikh Saad bu dañuy woote foofu ca ngumba ngewul kon daal gàmm gi yaatu na ci Sénégal waaye lépp it di ngeen ci ànd ak télé bu mag bi nga xam ne moom moo di Sen TV tey nag oustaz Mouhamed Mbaye Jamil dafa am ku ñuy dalal koo xam ni jëmmam dañu ci gis rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax olof dafa ni kéwul du tëb doom jëbët talamu doon dokoo donn mm-hmm. kooku nag moom moo di euh, sat bu samba kan mooy way juróom wu sell woo nga xam ne rasulullah rek la bëggoon yaa saydi sallallahu alayhi wa sallam way ko ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu amoon ci xaas ya seex boo xamante ni ak koo mën a doon moo xam dégg nga olof moo xam déggoo olof bu rëkkee ba junjum yi daal di nga xam bu baax cofeelam ci yonent bi loolu nag moo ragalaat ñëw ba ci doomam ji nga xamante ni Cheikh moom la ñu invité tey ci biir loolu internet yi nekkee ci page officielle bu Sen TV gën leen partagé gën leen commenté te ngeen di bàyyi seen numéro téléphone waxtu wu nekk ndax waxtu wu nekk mën nañ leen taamu jox leen seen paas ak seen yóbbulu gàmmu ndax nag kiñ koy amal ku ko jar la ndax it nag yàlla moo ni julli leen ci moom euh, ma julli ci yéen ma teral leen ci ay teraanga ndax it nag waaye dig na tamit ay malaakaam ñu julli ci moom nañ ko bëgg nañ ko roy nañ ko fonk nañ ko bëgg guddi tey ñu ànd caag sat bu sàmm bismillah Cheikh Saad Bou. gën gi gën seenu xas lay lay la la yàlla la ko may yaaye xayrul wara ngën gi mi dee gi nga gën jaam ñi du xas lay la ko may ay xayrul wara ngën gi mi def Mustafa gën gi nga gën jaam ñi du seenu xas laay laay la la yàlla la ko may ay xayrul wara yàlla la ko jagleel yow yaay ngeen gi mindeef ci sa leer gi la yàlla amal li mbooti nekk teef yëpp seex saadul nabi nee na maamam yenneen leer gi bi nuuri gi addaahumma fil kawni yow yonent bi wa uxtiyal ubaada siralawni jaada alayhi bil kitaab wa suhud tafaddulana dal xiyaami wa sujud sayyidina muhammad gën gi nga gën jaam ñi du seenu xas lay lay la la yàlla la ko may xayrul wara gën gi ngi def la alamal huda بدر تمام يو يونان سيد الكونين وسيد الثقلين يا باب الهدى بحر ندى زارم الهدى يو يونان خير خلق الله يا ني خوي way wi ma koy way neex na ko lool waaye bu ngeen defee nii mu gën ko neex way wi ma koy way neex na ko lool moom nabi waaye bu ngeen fi tasoo mu gën ko neex Mamadou Abdoulaye waaw waaw sangu sangu yaa nge sang yange ya sayyidina ya mama Assane xayruna Mamadou Abdalaay sangu sangu xayruna bismillah ma jël way wi ndeysaan ko ci jëm ji sunu jëm yaa ko tànn na ko teg ko te sandu jàmm moo la lamboo Soxna Xadijatu abi taalib ñoo yoroon yoroon yonent bi lu dul ñetti bis mu yelloo rasulallah kul dafee ni ku ko jege faatu bàyyi faatu jooy mu ne ma rasulullah xel na ñibbi taayif ndax di jaaya di yaay ñoo na ko boleg dafee ni xaañ rasulullah yàlla yebal jibril naan waxal ma ala kullee waaw waaw yàlla yabal Jibril laan waxana ak Jibril xoolal jibril naan waxal ma alak leen waaw mu bal leen tax ba yonent bi riñaane wét fa labat yàlla ko wétali Seydina Omar bun Xataab moo toj tax ba nonduloo Bilaal Bilaal ne Mustafa génnal ñu dem xanaa li nga wate du dëgg mu ne ko dëgg laa taaw génnal ñu dem ca kaw ca kanam Usmaan na dencoon ñaari doomi yoneel li tax koy woowee zil nooreyn aliyo bandara karamala wajootaaw moo dak noonu jinne zaatul alam alami alami maami serifiye yàlla yebal jibril na waxama alak lee waaw waaw sallallahu alayhi wa sallam borom kàmbu gaa ngay nalaw Madinatu Munawwara xalna alak leen wu in xalal ba diine abal leen la yududoona xayril wa xalna alak leen kal adami mudun sawa muxtaaru taaha ibnu abdallah xayr الذي لدى القدم يوتي الله محمد من الكريم التوسل الكريم إلى هذا الكريم فكنا خالص الكرام صجب جمدنا يعني خوي وخلم على كل Sagi bëj Medina كل بيت وإن حل البدء به جده دون خير الخلق كالآدم مد المصطفى مختار تاها ابن عبد الله خير قريش لكل بهم عين نعيم الأيد رؤيته يوم تاها بنيت تجيلة كدمي يعني خوين على كل مبالين ليالي sallallahu alayhi wa sallam tabarakalla macha allah sat bu euh, sàmb euh, la am tey ji euh, ci jotaay bu yaatu bi nga xam ne yóbbulu gàmm waaye tamit spécial gàmm mu woyal ñu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam na ko ci juddoom way na ko tamit war fakàll ci saaba yi mu àndaloon waaye wan na ko way na ko tamit ci njëggal gi nga xam ni rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ko ci xolam te daan jéggale lool lool loolu oustaz Mohamed Mbaye Jamil tey jii xam naa ne nabiya yëpp kontaan nañu ci jotaay bi. billahi ndax euh, rab dafa waxoon ni la in madaxta muhammadan bi maqaalati laakin madaxtu maqaalati bi muhammadin mu ni su may way yonent bi du ma way yonent bi ci man mi koy way ni ma toll mm. waaye bu ma koy way dama koy way moom ca na mu toll boo gisee muy daaneel nit ñi ci cofeelu yonent bi mooy buy way yonent bi moom day way yonent bi ca na mu toll moom noonu lay wayee yonent bi waaye du way yonent bi ci mu toll moom booy way yonent bi ci ni nga toll yow ci sa baat nga koy teg. dëgg la léeg-léeg di nga diri ba nit ñi dootuñu dégg parce que bu boobaa sa voix ngay jaay mais nag booy way yonent bi ci ni mu toll moom loo ëpp da ngay absenté kan ni dafa mel ni danga nga jàkkaarloo ak moom di ko way. waaye li wér tóor mooy guddi tey gi ñëpp yëg nañu seen cofeel bi ma ci gën a neex mooy mu baal leen layal leen. baal leen ba pare <laughs> layal leen. ci jamono bi ñu toll nag. waaw waaw ñu jéggale day gën. waaye tamit dimbale sa nawle doomi aadama day gën. xam nga dimbali nit jéggale yërëm yërëm dimbali nit kii ba pare del ko mhm. ni moo ma tooñ baal naa ko waaye moo ne tooñu ma tooñ da ndeysaan nit ku am kersa la day oyofal ay duma noonu la njool màkk daan def ak jaam ñi seex jërëjëf yaa Seydi ñu fàttaliwaat internet yi nga xam ñu nekk ci page officielle bu Sen TV gën leen di partager gën a commenter rek di bàyyi seen numéro téléphone te kër yi nay bëri ndax it nag ki ñu amal guddi gi jar na ko muy Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mi nga xam ne mooy buur bi màgg sax mi ngi julli ci moom ak i malaakaam digle na képp koo xam ne sàkk naa la del julli ci moom di sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi euh, Cheikh Saad bu Samb mu daal di nuyoo téléspectateurs yi ak internet yi Cheikh bi ñu ngi lay ziyaari bu baax a baax a baax di la yéege sa yéeguwaay di la jox sa wareef waaye di la jox ak bi nga xam ne am nga ko sa digganteeg doomi aadama yi salaamaaleykum waaleykum salaam aouzu billahi euh, min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafi al anbiyahi wal mursalin saydina muhammad ibni abdillah xaatimi nabiyina wa imaami al mursalin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu cheikh maa ngi lay nuyu di la ziyaar ci weeru tedd wi di nuyu suñu xarit suñu wëllëre suñu lépp oustaz Mouhamed Mbaye Jamil di ko ñaanal yàlla yàlla dolli ko sutura dolli ko teraanga bi xormati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Ah, di jiital ci nuyoo bi fa tabaarakallaahu xalifatu cheikh na cheikh saadu abihi di nuyu njabootu maam cheikh na cheikh saad bu yëpp di ziar sunu wasila sunu bunt ci cheikh na cheikh saad bu chérif alwali maane Ndiaye euh, di ñaanal yàlla sunu wéyjur cheikh mbay Ndiaye sàmb bi ñu tàggatoon ci lii yàlla li ko ma yërmande fa mu tëdd ak mboolem tàggat Seydina Muhammad ak sunu wéyjur wu jigéen euh, di nuyu mboolem daayira bi ñu àndal muy group Tabala bi di leen ziar leen jox seen wàccuwaay ak fu kilifa ne ci réew mi ñu ngi lay ziar. mi ngi noonu euh, guddi la goo xam ne Oustaz Mouhamed Mbaye Jamil dañ koy màggal fépp ci àdduna bi. wallaahi Sénégal yi dañ koy màggal fépp niñ koy màggalee Tivaouane. wallaahi noonu lañ koy màggalee fii ci Masalikul Jinaan. wallaahi noonu lañ koy màggalee fële ca Touba. noonu lañ koy màggalee tamit mais dina Baye noonu lañ koy màggalee fii ci Yoff. Mhm. noonu lañ koy màggalee Ngumba Ngéwul. waa Kana Cheikh Cheikh Cheikh Sadbu. Mhm. noonu lañ koy màggalee tamit ca Lubbudu. waa Kër Cheikh Ahmed Ndiaye noonu lañ koy màggalee tamit fii ci Ndiassane noonu lañ koy màggalee fépp ci àdduna donc euh, ñun moom door nañu liggéey bi ànd ceeg plateau yu yanj yi nga xam ni indil nañu leen ko benn benn laaj rek laa am yéene laaj ko euh, bu Samba balaa ñuy gën a avancé parce que man dama ko teel a découvrir ci bu muy nekk tout takk di way léeg-léeg damay toog mu yàgg may xalaat naan euh, Sadbou Samba est-ce que jaar na Euh, fi ndaw di jaar. ci maanaam football. maanaam fi ndaw di jaar. est-ce que Cheikh euh, Sadbou Samba jaar na ci yooyu yëpp. waaw macha allah yooyu moom. ak métier waaw yu mënul ñàkk la. Euh. ndaxte boo nekkee gonek mbuur daanaka sa jëmuwaay yëpp. ginnaaw def farata dem jàng ak yooyu. <laughs> mais sa jëmuwaay yëpp ci doxinu ndaw mooy dem géej. waaw bëri na ndaw ñu ne mbuur dem géej dem ci plage bi nekk fa di di bëre. wala di football yooyu dañ ko daan def lu bari waaye nag daawul tere lu ñu mës a jàpp bu tagg yonent bi jotee bàyyi nañ ko bu farata it jotee daawuñu nekk ci loolu ah donc ndaw moom daanaka ñëpp a ciy jaar mhm. waaye ndeyam fooy fooy sunu borom moo lay eh, récupérer boppam def la la nga doon waaw allah ah, sa wayjur wu góor teel la tàggat hmm. ci tàgg rasulillahi sallallahu alayhi waaw sunu wayjur eh, Cheikh Mbaye Ndiaye Samb ku ko xam ci lii rek nga ko xam muy tagg yonent bi euh, li mu daan ñaan yàlla it mooy réew mi yëpp bëgg nañ ko bëri woon ñu koy roy ba koo ci dégg baatam danga naan Cheikh Mbaye Ndiaye sàmba Ngom waaye daf daan ñaan yàlla naan ko li ëpp ci lii may def soo demee ba nar ko rocc yow sa boroom li ci ëpp yàlla na ko yenn sama njaboot mhm. ah du ñun rek ndax ñii toog samay rakk lañ ay doomam lañ kële ci tabala ji sama mag la ak kee ak taawam du ñu nga ca Mbour. Mhm. ñoom ñëpp ay tagg yonti ba ci ay seet setaatam kon nag yàlla nangul na kon ñun daanaka kenn lañ ci rek ci famille bi waaye macha allah ñeneen a ngi ci biir ñuy ñuy def lii nuy def. Mhm. ci lii rek la yar tàggat ñu ci. tabarkal mhm. tey daal mi ngi noonu euh, dinañu def jotaay bu riche waaye bu ñu jógee ci sat bu sàmb damay ànd ak le grand conférencier oustaz Mohamed bay Jamil. tey mbay Jamil tey sama invité nga tey moom doo employé ci kër gi tey sama invité nga tey dama lay wax rek ngay def li ma la bëgg laaj mooy ndaxte yàlla borom bi subhanahu wa taala bu dee sàkk yonent wala muy sàkk waliyu comme ci mën a doon muy gaa yu baax ñoom ñooy xëy tànn seeni way jur rasulillahi sallallahu alayhi wa yàlla tànnal ko waaye tamit moom mu tànn ay way jur mhm. ku ci mel ne soxna aminatu mooy juróom jigéen. mooy juróom góor di. Abdallah. Baye Abdallah. lan moo tax soxna Aminatu ak Baye Abdallah. Cheikh maa ngi nuyu saat bu tabaarakallaahu di ko yéege yéegu waayam comme da ngay teel a wàccuwaay waaye ci wayu bu sayru yéen da koy faral di way ci kayfa tarxaa ruqyakal anbiyaaw. Cheikh boo demee ba ci biir way wa ma nga naan lam fi damaa'iril kawni tuxtaaru lakal ummahaatu wal abaa borom way wi moo way loolu mhm. dafa ne yàlla deñul ci wërngalu képp adduna bi li nit ñiy bari li jigéen ñiy bari li góor ñiy bari ginnaaw bi mu paree ci yenent bi ba noppi bu ko wàcce woon mu jóge asamaan ni cëpp ci suuf day desee am kilifa ak ndey ak kilifa ak baay te mooy royukaay faw yàlla xool ci ndigg li mu koy jaarale ci orma ak ci xorum bi mu koy wàcce ci jigéen yaayu nabi bu fekkonte ni dama lay gàttalal diggante baayam ak yaayam dama lay wax ni la baayam bi ko jur mooy abdallah koo fiy tagg géer gu ne wala géwal bu ne cheikh war naa xam géeram yonent bi abdallah moo ko jur ci wàllu baay laa lay wax nabi abdallah hashim moo ko jur hashim abdu manaaf ko jur abdu manaaf xusay moo ko jur xusay kilaab moo ko jur kilaab murata moo ko jur murata kaabu moo ko jur kaabu luway moo ko jur luway xaalib moo ko jur xaalib fihr moo ko jur fihr malik moo ko jur malik kinaanata moo ko jur kinaana xuzayma moo ko jur xuzayma mudrika moo ko jur mudrika ilias moo ko jur ilias mudar moo ko jur mudar nizar moo ko jur nizar maad moo ko jur maad adnaan moo ko jur ñooñu ay ñooy ay bàyyi njool màkk ak ay maamam ci wàllu bàyyam cheikh li tax yaayu nabi am solo yàlla fexe na ba organiser ko ba bokkul lenn ci lu jigéen di bokk comme li nga laaj sàdd mhm. yaay na bi jaarul ci li jigéen di jaar ci ndaw léeg-léeg ñu mayee jigéen sa xel am fu la yebal ci wàllu caaxaan wala lu ni yaayu na bi cheikh kenn musu koo xalaatee lu ñaaw wa hiya xiina isin ala nisa sharafan fi teraanga yam ak daraja ak personnalité yaay yonent bi passé na ko wa nisbatan ak ci askan booy booy booy natt yaayu bi ak baayu bi ñoo bokk benn maam. Mm-hmm. nabi ak baayam ñoo bokk maam nabeek yaayam ñoo bokk maam baayam ak yaayam ñoo bokk maam. yaayu bi nekk jigéen ju am personnalité yàlla teel koo bàyyi xel fexe ba génne ci boppam bu fekkoon ne ci jamono la yàlla nee na ko ci xëtif bul bokk natt. ki ma lay dénk tax. Mm-hmm. bul bokk ndey dikk ki ma lay dénk tax. bul teg sa ci sa bopp ki ma lay dénk a tax bul sol tay baas bu gàtt. ki ma lay dénk tax buloo loo doolu yaraax ki ma lay dénk tax ndax àdduna bi li muy bari bari nit yëpp ñëpp ci sa doom jooju la ñuy dëgmal bëgg naa def ci yow jigéen ji loo xam ni benn yoon lay jaar yàlla dafa programme cheikh di programme di programme di programme ba fexe na ni njool màkk ku dul moom génnewoo ci biir way juróom mu mu programme baayam di ko programme ba bàyyi njool màkk ndiggam li benn doom mosu cee génn bu dul rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sat bu yaa ngi muy dégg yàlla programme na yaayam ba biiru amina ku njool màkk mosoo faa tëdd mm. programme ndiggal baayam ba ku dul rasulullah faa jaar wala ma taqalla nooru muhammad sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam min shahri jaddi Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam walamma taqalla nur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam min shahri jaddi Abdul Muttalib ila sahri waladi abdallah waaw waaw ibni fatimatil masumiya sallallahu allah qadrahu wastahara fadluhu bayna al anam wa kana wa kana بنه كالكواكب الدرية وكان وكان وكان leer gàngoogu leer gàngoogu Cheikh te leer gi kat fu ko yàlla mës a jaarale ndig lu mu mës a jaar am nga jaloore boo def boo xoolee ci yonent yàlla Ilias bu musaan di wër kaaba gi labbayka bu ko daan wax danaan dégg leeru yonent bi di wax labbayka ci ndiggam wa fii sulbin li iliyaasin yu labbi wa yasmaul mawaasimu bil azyini te maam la bi leer gi ñëwee bëgg na jege ci maamam abdul mutalib abdul mutalib bi abraha di toj ci kaaba gi giléem gi mu waroon bi mu dawee ba jàkkaarloog leeru yonent bi ci ndiggal abdul mutalib giléem gi ci boppam daa sukk ñaari tànkam jalasal fiilu fil mu xam ma si ata ñaari tànkam yi wanewaat ginnaaw ni du xool kaaba gi ragalul kaaba gi de mais leeru njool màkk bi ne woon ci ndiggal Abdul Mutalib moo doon frappé giléem ji ba ñemewu la laal maami njool màkk leer googu ba mu bàyyeekoo ci ab ci Abdul Mutalib Cheikh ñëw ci Abdallahi mi caat nga xam ni yàlla yéeme ne yéeme goo xam ni Cheikh fu leer gi jaar doo am rak leer gi sat bu fu mu jaar du am rak gis nga bi mu jógee ci aadama ca siisa la wàcc si caatam mm-hmm. parce que siisa amul rak aadama mm-hmm. jur na Cheikh mam jur na quarante jur na vingt fois ay seex muy quarante doom mu teg ci kenn muy quarante doom kooku la leeru yonent bi jaar ci moom muy caat keneen topp ci bi leer gi ñëwee ba ci abdallahi bàyyi njool màkka seex fa la leer gi yam amul rakk mooy caatu baayam yàlla teel ko roof njàmbaar gu toll ni seex bàyyi na bi bi mu amee dix-sept ans ci la nu ko takkal soxna sallallahu alayhi wa ci la takk soxna de ci la nu ko takkal soxna ci gàttal benn seetkat a jaar te te li yéeme baayam waa Màkka la yaayam waa Medina la Màkka la juddoo Medina la nu ko denc. fa tazawaja Abdallah. waaw bi Aminatil Batulil Mardiya. sallallahu alayhi wa sallam fa tazawaja Abdallah. bi aminatil batulil mardiya sallallahu alayhi wa sallam cheikh hmm. leer gi dafa xëy rek maamam maami nabi abdul mutalib ni abdallah ah jot na ma takkali la soxna naka te yesri ba ca màkka la tuddoon medina la la ko yonent bi tuddee waaye avant yonent bi juddu yesri ba la tuddoon baayam ni ko dama la war a takkali soxna jot na am nga fukki ak juróom ñaar sàdd seetkat bu jaar ca dëkk ba ca yesri ba ni leen pare leen am na xale bu góor bu fi war a takk si soxna fukki at ak juróom ñaar lay am mandarga bi buy ñëw baayam lay àndal yéen jigéen yasri ba waaj leen xaw ma kan waaye ku góor kooku ku mu jaxasool ci yéen yow sa tur du fay te yi tamit ndiggam la lu yàlla bind moo ci gën pare leen ko ñu ni seetkat bi kañ la fiy jaar ñu ni ko dina fiy jaar altine cheikh jigéen ñi positionné wu yasri ba di xaar bàyyi njool màkka ngir nangu leer gi ne ci ndiggam li jigéen bi nekkoon ci seen biir rocceeku daw frontière Medina tudd Fatima di fa xaar baayu rasulullahi pour bu ñëwee mu njëkkanteeg jigéenu Yasri ba leer gi Amina ngi kër ndayam toog ci wetu ndayam yëg na coow li waaye bajantuwul jaayuwul ndax dal gi mu dal fekk yàlla moom la programme ni ko leer gi nekk ci Abdallah ci yow la jëm si sallallahu alayhi wa sallam bu Fatima mu ngi ci frontière Medina baayu Medina na bi di dox ànd ak maamam Fatima di ko xool di ko xool ba xam ni jeune bii la booy bii la waa ji la mu fexe ko cokkaas ci ku am 17 ans ni ko noo tudd mu ne ko Abdallah la nu may woowee mu ne ko sa baay bi nu mu tudd mu ne ko sama baay Abdul Mutalib xelam dem ca la ko seet kat ba waxoon. mu ni ko dama yori gileem bokk ci askan wuris dëgg li ma lay wax boo ko bëggoon def maar mbaa nga def ko keneen ci kër gi. Mhm. dama bokk ci askan wuris yor alal bu doon boñaa cheikh day nangu. day nangu alal laa yor dama bëgg ñu sëy ñun ñaar. bàyyi na bi tourné ni ko damay ànd ak sama bàyyi soxna la may takkali mu ne ko bu fekkee ni mënuñoo say ñun ñaar ñu jaxasoo tuuti lu ma yor ci alal dinaa la ko jox naa fixee rek ba sama yaram laal sa yaram ci xale bu góor bu am 17 ans l'islam xewagul nabi juddoogul bu doon xale teg duñ delloo déggoo ma de ndaw seeni ko kaay ma jox la hmm. ñun ñaar ñu jaxasoo benn jaxasoo ma jox la alal ak i gileem ak li ay ku ko waxoon maar. Eh, baa nga wax ko Papis Bodian. wala nga wax ko Papis Bodian. mbaa Baba Diaw. Baba dafa yaru sañu ma ko ci moom. mbaa Mara. Mara ñeme naa ko ci moom. mbaa Maam Sidi. ñeme naa ko ci moom. ah. waaye gis nga. Bakary Barora. ñeme naa ko ci moom a ah, sama sëriñ la kooku sama sëriñ la nag sax bu dégg nga. yu hmm. baayu nabi ni mu baaxee Cheikh. ndaw si ni ko. nañu jaxasoo ma jox la ay jox la ay libidoor loo bëgg ma jox la ko bàyyi na bi siggi xool ko ne ko amal xaraamu fal ma maa tuddunahu sallallahu alayhi wa sallam ne ko def lu araam dee uute ko moom a ko gënal waaye li way wi gudd gudd li ma ci gën a neex te bàyyi na bi wax ko ko dafa ni ko yax bi dafa war a aar mhm. alkarimu gor irduhu deram mhm. wa diinahu ak diineem te l'islam wàccugul de bàyyi na bi ci à l'âge de 17 ans cheikh mu ni ndaw si yax mi dafa war a aar alkarimu gor irduhu deram wa diinahu ak diineem ni yalax ndaw si bàyyi ko fa ndaw si di ko toppaat mu ni ko jaru ko bu fekkee ni jigéen rek la dëkk ba ma jëm sama bàyyi daf may waajalal seex ci altine jooju ci la ñu dugg yasri ba di medinatul munawara ñu jël bàyyi rasulullahi may ko yaayi rasulullahi ba ci kanam ñu doxal sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf oustaz Mohamed may Jabil tabaar fakal la waxtaan bi ànd naa xam-xam wér yal na yàlla sàmm la aar la yiir la ñagal nu la téléspectateur u Sen TV kontaan ngeen ci yóbbulu gàmmu gi waaye kontaan ngeen ci spécial gàmmu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lu fi waay sàkk lu fi yàlla sàkk ci lu baax moom rek a tax jëmam jee tax leeram jee tax kon nañu góorgóorlu ci guddi yi nañu góorgóorlu ci bëccëg yi ngir mën a naru ci nar yi nga xamante ni si yàlla dina ko séddale ci guddi mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam saat bu sàmb ñu mm. bàyyi wàlla rek nga yëngalaat jotaay bi ni ngay dëbbeek oustaz nag daf may neex wax wu la neex del këf <laughs> waxtu wu la neexee del këf <laughs> tey dafa lu la neex cheikh saat bu jërëjëf suñu sàppe bi nabil mustafa خير الأنبياء نبي المصطفى yónneen صلى الله عليه وسلم من مالك الملك سلام رمت صلاة وسلام برم برير أربة المدينة من مالك الملك سلام له براءة يا من له سيادة يا من له براءة محمد يا كافي يا محمد يا ماحي يا محمد يا كافي يا محمد يا شافي يا sallallahu alayhi wa sallam xusbi yabdi ya sidi sama waa jaduni tubaar fa kàlla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam loo tudd ci moom dafay neex ñu ngi nuyu bu baax a baax a baax soppee nabi yëpp di ci jiital Cheikh Mouhamed Abdallah Thiam borom fondation Kër Rasoul ñu ngi ciy nuyu suñu yaay ajaratu Daba Dukure di ci nuyu bu baax a baax suñu yaay ajaratu ak Kumba Sall gi del maam Cheikh Omar Fouti Tall ñu ngi ciy nuyu njabootu taalim yëpp di leen jox seen yéeguwaay Oustaz Mohamed Mbaye Jamil Cheikh Euh, gis nga Saad bu Samb lim ñu indilaat ci rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Saad bu boo dee way rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bañ yëg yëpp ngay am parce que gis nañu heure boo koy way da ngay gëm ba ba ngay xëpp ndeysaan <laughs> waaw xam nga Cheikh yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam lii sama baay waxoon sëriñam ba Cheikh na Cheikh Saad <laughs> ne ko nazartu bi aynil qalbi mm-hmm. damay gis dama lay gis ci bëti xol mm-hmm. di ci yëg cofeel ndekete bët yi nit di gisee daanaka zahir lay gis mm-hmm. waaye yonent bi bëti xol moo koy gis mm-hmm. te bëti xol boo bëggee muy gis bu baax da ngay gëmm bëti zahir yi ndax bu boobaa yëg-yëg ba day gën a dugg te loo bëgg mu dugg ci xolu nit yow ci sa bopp tibbee ko ci sa xol Ah, taxaw di wax sunu cofeel ci yonent bi day nuru wanewu waaye yëg nañ ne daal balaa ko kenn di bége ci ñun fekk na ñu ñi koy tagg ñu koy yëg defe naa sànq bi réalisateur bi di génne image yu Medina bi dama bëggoon a arrêté ne ko na bàyyi image bi muy wane nii waaw ndax ndax ndax mu ngi mel ni ba ma fay taxaw 2015 di ci sant sunu yaay Adja Ndeye Tabara ndax moo ma woon jëmm ji muy rasulullah sunu bàjjen kon nag yonent bi yëg-yëg la euh, kenn mënu koo gis ci bëti zahir moo tax bu ma koy way dootuma xam fu ma nekk waaw dootuma xam fu ma nekk bañ na tabarkàlla sas Jamil hmm. yaa ngi tolli woon ci suñu maam Abdullahi bi muy dugg ma diinatul munawara ñu war ko tànnal suñu eh, maam Aminatu Cheikh Baye Abdallah dévié na ndaw si waaye jàmbaar léeg-léeg nit yàlla lay teg loxo ngir sobe la yàlla nitam dina ko orienteel boppam ba lépp loo xam ne ndaw dina ko def du ci tërëf dem devier na Fatima moomu tabril mama la ilayha wa hiya lam mun a war a ca joojale jamono mu tudd ba ñu jël baayu nabi si xolal yàlla ñaar ñu bari kersa la boole mm. ñu jël baayu nabi yaayu nabi tombeeg guddi aljuma moo waral guddi aljuma am doole ñu tuddee ko laylal arubaati jël yaayu nabi may ko baayu nabi cheikh ñoom ñaar ci benn néeg kenn ku ne am nga kersay jël sa loxo teg ci sa morom yàlla boole na góor gu am kersa sadbu ak jigéen ju am kersa ñoom ñaar ñu am kersa lool bay abdul mutalib moo ci wax ñoom ñaar ñu doog a daje leer gi bàyyeekoo nag ci abdallah yi dem ci amina gis nga seex bi leer gi bàyyeekoo ci Abdoulaye dem ci Amina. Mhm. asamaan daa sar xolle. te na yeewu leen kon guddi la. ana nuural xat mi xad xalla laylakumu waaye yeewu leen kenn amatul droit nelaw. Mhm. leer gi nekkoon ci Abdoulaye bàyyi ko na fa ñëw na ci Amina. seex guddi googu leer gi waxuma la waxuma la waxuma la ëmb gi. Mhm. waxuma la juddu gi sàdd. waaye premier jour rek ñun daje ñoom ñaar yàlla wane jalooreem te nabbahu yeewu leen ku doon nelaw yeewul yeewu gi nag du yeewug zahir mooy leer gi war a defar àdduna man yàlla xaaroon naa ko ca aadama yàqamti wu ma ko jaar naa ci yonent yi yàqamti wu ma ko aadama Moussa jaar na fi yàqamti wu ma ko Daouda jaar na fi yàqamti wu ma ko Yaxya jaar na fi yàqamti wu ma ko ñaari yonent ngay dégg seen feet ba yowmal xiyaam li tax kenn ki feetam di siiw li mu jege kenn kee tax 24 décembre képp ngay dégg ak 31 décembre Isa moom ko te tafu gi mu tafu ci yonent bi mu jee koo rek moo waral ñu boole ko ci mais mës ngaa dégg sat bu xewu maam Adama. Mhm. mës ngaa dégg bu Moussa leer gi daa bàyyi koo ci Abdalaay dem ci Adama rek yàlla ni yeewu leen ci Amina. xam nga Amina mooy firi sécurité. Mhm. lu waay di denc lu mu doon boo yoree ñaari poos mhm. bi ngay génn sa kër yëg ni benn bi am na bën bën bu ci ne. di nga ko calculer ba ciy denc doo ko fa def. amina war a jur al amin. waaw amina moo war a jur al amin aminatu naqiyat amina mooy firi sécurité ku nu wóolu yàlla boole ko jaamu yàlla cheikh bu yàlla bu la yàlla teralee nga am alal sadd te mën a jaamu yàlla. dinaa file di dem màkk te yóbbu nit ñi. yàlla boole la ak soxna su lewet te baax seex sa àdduna jàkk na. dëgg la. ñaar ñooñu ñoo daje mën a jur njool màkk. ñu jël ko jox. guddi àjjuma leer gi dafa déparé ci Abdalaay dem ci Amina rek yàlla ni àdduna waratul a tilim ana attiroo parfum wu leen baaxiru cuuraayu leen xayral buxuuri cuuraay yi gën wa afrisu tàllal leen a sajaadaata sajaada yi takriman alal xusami waaj leen ko sangu Makka ak Medina leer gi bàyyeekoo na ci Abdalaay dugg na ci Aminatu sallallahu alayhi wa Amina yàlla yàlla xam ni leer gi comme yàlla Abdoulaye li mu bëggoon ci moom mooy leer gi génn ci moom. Mhm. am na 17 ans leer gi génn na ci moom yàlla ni ah li ma soxla woon ci moom jeex na bëgguma juddug njool maa ko fekk ko fi ndax bëgguma na bi juddu naan papa. Hmm? bëgguma ko. Oh. bëgguma mu judd naan papa bàyyam toog ba ci yàgg rek xelam dem saam. mu ne commerce jot na may ñu ma soxna war naa samp kër sama baay jaanam wàcc na xaaral ma ñëw dem saam defi commerce cheikh bu ma ñëwee wut fond. commencé toog màkka nag bokk ci milliardaire u màkka yi te yàlla programme wul loolu ci moom hmm. mu dem mag Saam def deux mois bi muy di ñibbi si boobu Amina itam ëmb na ëmb ñaari weer Cheikh waaye yëgul ni ëmb na ndax sat bu Amina musta yëg ci biiram ka ne am na lu ci nekk akbar Cheikh Amina ëmb na ba neuvième mois biir bi musul génn mu yëg ko musta yëg jafte weti mësta metti ndax sangu Màkka ak Medina ku yàlla war a bégal ku ñu denc ci sa biir cheikh ku mu doon waroo yëpp metti boobu baayam dem saam doom waa war a tourné teraanga ji bari lool sadbu bi mu ñëwee ba abuwaa diggante Màkka ak Medina hmm. tension daaneel ko bàyyu na bi ci ci âge de 17 ans mu ni ñu moo àndal da ngeen di dem ñu ne ko mënuñoo xaar dañoo na mu sunu njaboot mu ni bu ngeen jiitoo Màkka wax leen sama soxna na waaj maa ngi ñëw wax leen ko sama baay Abdul Muttalib bu kër gi seddee bopp bi sedd ma dugg Makka bi timis di jot benn xëti frombre gi yooxu ko ni ko say at jeex na waratoo mën a dellu Makka fi nga yem waaye dinaa la xamal leen yàlla tere leen na la turuudul fay ba yowmal xiyaam bàyyi na ci sa biiru soxna leer gi ne woon ci yow yonent lay doon cheikh xam nga toog di science di xalaat di xalaat bàyyi na bi ni mu toogee di xalaat yeneen ndénkaane yi mu dese woon mu woo benn waay ni ko ndax mën naa laa yónni màkk li ay bagage damay borom lam bi sama soxna xam naa bi ko yàlla terale ba mu mës a am doom bu dee góor nañu ko def jaaro takkal ko ko bu dee lam nañ bu dee jigéen nañu ko def lam dajale bagage yi ndeysaan jox waa ji fi mu taxaw di wax ak moom di muuñ yàlla di ko wan leeru yonent bi muy sukuraat di muuñ bàyyu nabi di muuñ ba ni këndëng sedd oh, nabi tel naa doon afa janibul baqa min ahli haasimi te cheikh li may yéem mooy mbaa yëg nga ni way wii sat bu way waykat yebu ko way wii bàyyu nabi yaayu nabi moo ko way bàyyu nabi mosoo koo dégg. Cheikh ndax dégg nga ma dama ne la way wi yaayu nabi moo ko way baayu nabi raar na lool waykat mokkal ko. afa janibul baqaa'i min ahli haasimi. waa ji indi bagage yi fekk yaayu nabi Cheikh togg na reer bay préparé teeru yaa baayu rasulullahi. taxawal jaafa baayu nabi waa ji dugg Makka di laajte di laajte ba yam ci maami nabi abdul mutalib ni ko ndax yaa jur abdallah mu ni ko may baayam mu ni ko ah moom de moo ma jox bagage yi wax dëgg yàlla kat soxna sa ka yàlla waaja ko yàlla boole loon wuyu ji na boroomam amina ni bërit jóg taxaw ni lu xew ñu ni ko sa borom kër génn na àdduna amina dem ba yuuxu am leer guy wax ci nopp bi ni ko bul yuuxu li la yàlla denc la ëpp loolu waaye xamut lu xew amina na nga bañ a yuuxu li la yàlla dencal moo ëpp loolu sat nag ci la yaayu nabi génne taxaw ci biti ni afa jaanibil bathaa min ali hasimin oh. wa jawara lahdan xaarijan fi lgamaarimi mm-hmm. daathu lmanaya daawatan fa ajabaha wa ma tarakat fi nnaasi misla ibni hasimin asiyat raahu yaxmiluuna sariruhu taawuruhu asdiqaauhu fi tazaxumi wa in taku xaalatuhu lmanuuna wa ribaha fa xad kaana miata an kasira taraxumi cheikh way woowu la yaayu nabi way bàyyu rasulullahi ndeysaan xoolal reer ba mu tegaloon bàyyu nabi pour war ko koo toggal ndeysaan muy jigéen yoo xuul mu teggi reer bi oh. teg ci suuf xool ko ni ko kon Abdallah doo reer doo lekk reer bii bin ma la mayee yàggul jotumaa miinante ak yow ay fan la ñu def yàlla nga ni ma yaa ngi dem saam ma bàyyi la nga dem saam ñaari weer yi nga def ma lay xaar pour nga ñëw ci seet bu bees nga wuyu ji sa borom ay waay kan moo may lekka reer bi tey ndeysaan jël reer bi jox maami njool màkka dellu dugg ci néegam waaye am na hëtif bu naan ko bul jooyi li la yàlla dencal moo gën a neex loolu mu sàngoo mbàjjam cheikh tëdd nelaw mu mel ni yàlla dafa rocci ci moom stress parce que kii war a ëmb njool màkka war a stressé sat bu dind ci moom mettit dind ci moom naqar yaayu na bi wayaaleeg loolu wayaaleeg loolu wayaaleeg loolu sat bu premier mois xamul ni moo ëmb deuxième mois xamul ni moo ëmb waaye weer wu ne cheikh dina am yonent bu ko seeti mhm. wax ak moom ni ko yaa ëmb gën ji min yëf dina ko jaaxal nan waaw man naka laa mën a ëmbee jaftewu ma gisuma ci sama biir première mois rek ami aadama ñëw wajaa aadamu ni ko yaa ëmb gën ji min yëf deuxième mois si sa ñëw tab siiran yaa ëmb gën ji min yonent yàlla yi di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw waaye ci sixième mois nag ci la amee yaqin ni Cheikh sangu Makka mi dinaa ngi ci biiram doxalal Cheikh. sallallahu alayhi wa sallam waaye jërëjëf Oustaz Mouhamed Mbaye Jamil tabarkalla li nga wax dëgg la de yàlla day mooy sàkk gaayam waaye tamit moo koy aaral boppam ñagal ko boppam tànnal ko yoonu boppam kenn du rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla yokk suñu cofeel yokk suñu mbëggeel ci moom ñu bëgg ko mu jaral ñu ndey ji ñu jur jëral gënal ñu baay bi ñu jur waaye tamit gënal ñu suñuy soxna ak suñuy doom gënal ñu lépp lu ñu mën a am ci àdduna kenn du rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sat bu sàmm mu nga juddoo ca Makata nga yoroo ca Makata yasri juddu ca Makata nga yaroo ca Makata Makata wa xabrahu fi adrabi ma nga juddu ca Makata nga yaroo ca Makata oh, ma nga gàddaa مكتا وقبره بإسرائيل أهلا بشور مولدي شفيع العاسمين محمد ووحدني لاد العميد قد شفى نور المبين وعرتني وعن العين بصالحين يمني وحدني والانبياء غفروا وتأثروا وكل sallallahu alayhi wa sallam ataa bi saadi la sadiya xayrul محمد بشرى عني عني يا ربي حفظك المولى رفيق بالمصطفى متقدمة على سيمي محمد ووقت ميلاد العميد وسطها نور المبين وأرتجي وأن العين كسرى بإيد الأحمد وفارس قد قام دان نيرانها لما دولتها taqotaa di bas yaasal mursadi yeneen yaa ngay déclaré juddoom ga walan bi al uxbiru bi bas yi wa basaru sayyiduna muhammad wa kulluhum ñoom ñëpp xazakiru miqdaaru zaakal ci bi mu juddoo dafa set taqul deret taqul meret xetam ga neex jëmmam rafet na bëtam ya tusngal moo nabi bi mu juddoo dafa set taqul deret taqul meeret xetam ga neex jëmmam rafet na bëtam ya tusngal moo ko wër fekkoon na mu dugg néegu góor laataa juddu mooy li wóore juddoom nga ca ñay gisaan ne ka njabar ba mu juddoo mhm. safara faris bépp xay seytaan yëpp toog di say iblis nga naan ki juddu tey ji moo may xatal dina ma lor jinne ya naan jommi nañu asamaan dematuñu lax war a xamatuñu ku naaw bi diw la tasar sallallahu alayhi wa sallam nabina nabina nabina nabina nabina nabina naa ci dellu si Cheikh. bu Samb doo ko doo ko. waaw waaw xam loolu kon kon foofu. xam na ni fin mu toll yi ak internet yi. dina Chara Faat dool di daal di dóor code gars yi toog di ko xaar. waaye Oustaz Jamil. Euh, Saad bu Samb gis nga dugg na sax ci euh, ganek àdduna Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sunu maam Aminatu bi mu yëgee nii. moom ci boppam moom moo war a taawu sangu-sang yi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono bi mu ko yëgee ak bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waree gën a àdduna tabarakallahu cheikh euh, sat bu bi nabi di yëg bi way juróom wu jigéen di yëg ni moo ëmb yonante bi mu ngi ci àll bii root mu ne ci àll bii root nekk six mois hmm. yëgul ëmb gi ci gàttal waaye booba ndox xaw a manqué màkka ndax dëkku xeer la hmm. mu génn jëm ci àll bi di root bi mu ñëwee ba ci àll bi ñu ne ci benn teen góor yi màkk ku ne ànd nga ak sa soxna sat bu ku ne yaa ngi root di rootal sa soxna ci bagaanam di rootal sa soxna ci bagaanam ci yaram ci dalam muy xaar mm-hmm. bi muy xaar li nu war a rooti diis yaayu na bi ni ci naar yi du ngeen ñëw ngeen rootal ma ñu ne ko wutil jëkkër loo doon xool ba sa borom kër dem góor ñëpp cheikh kenn ku nekk rootal soxnaam waaye yàlla teral ko sat bu muy jàmbaar yaayu na bi di jàmbaar di jàmbaar barut bagaanam te ba ngaa neexu ta yenu mu tourné góor ñi diw doo ñëw yen ma doon ko wutil borom kër mu naan diw yen ma ci mu am wutil borom kër ba góor ñi jeex ñëpp di ko daw muy xool ñuy génn àll bi mu leen di xool ñuy génn àll bi ba gisatul kenn timis gi dugg mu jékki ba càgg wax ci xelam ni ciy sama góor ga Abdallah bu doon dund bu ma bëggee ku ma rootal dina ma rootal bu ma bëggee ku ma yen dina ma yen jékki ba ci yàgg di dégg benn écho ni saat bu di def yaayi ci àll bi cheikh yaayu bi def ni bët yi di xool di xool ba bëtam daj moom rek ci àll bi mu yooxuwaat yaayi amina nee na may xool muy def écho munu ma la wax yaay bi ci karaw bopp yi ba ci weewu tànk yi fu muy génn nee na mu ni koy yaay man mi ci sa biir may wax ak yow yaay ndax bu ma génnee yan la doo ko nettali waa màkk amina yëngal bopp bi ni ko déedéet ba ci yàgg mu gis benn loxo leer muy téye bagaan gi amina nee na may xool loxo bi cheikh muy téye bagaan gi borom mel ni lu ko dëj ci sama bopp bi nee na may dox jëm màkk nee na maa ngi jaaxle di laaj doom gi doomu kan la liy wax ci sama biir bi lan la ci la lu mel ni téléphone romb min baadi ma xat xalaa waawun yu xaalu la hëhë yëgal ni anti yow amina xumilti yaa ëmb albadra weer wi ñuy dàkkantelee weer te mu leer di njol màkk sayidal umami di sang ku mu doon sallallahu alayhi wa mois yamu ci de isa wadaatihi bu juddoo sammihi na ngeen ko tuddee muhammadan muhammad sànq limal naa la askanu baayam ni la amul ko tudd muhammad sat bu pression bi mooy amina danan waaw kan lay tuddee doom ju ma ëmb gi ñu ni ma tuddee ko muhammad muy problème ci moom cheikh amina yi dem sixième mois dem sa septième mois dem huitième mois dugg neuvième mois nag li waral gam mu yamook altine sat bu ci guddi googu ci la sangu Makka ak Medina gane àdduna yaayam nee na ma toog waaye seex sentir naa bëccëg gi sama yaram wi neex lool xam nga nit léeg-léeg naqar di ñëw nga yëg ko ci sa xol léeg-léeg bànneex di ñëw nga yëg ko ci sa xol waaye altine bëccëgam googu yaay na bi nee na ma nee nee na buy dox seex ci digg màkkatal mu karama dina romb garab garab gi def geste mbaa mu romb montagne montagne bi def geste ndeke booba ñu ngi koy ndokkeel yëg ni ko guddik tey ci la sangu màkkaat mi dina war a ñëw yaay na bi nee na bi géewee passé ci nattableb olof sat bu ma dugg ci biir néeg bi bi ma déparé une heure du matin ba deux heures du matin mais bi ma toogee ba ci yàgg nag laay déggaat écho bi ma doon dégg ci sixième mois yi Cheikh moom laa doon dégg fi ma toog Cheikh yaayu nabi nee na ma jékki ba ci yàgg tëdd ci kawlal bi dégg yaayu pareel maa ngi ñëw yaay ci écho Amina nee na may dégg rek yaayu pareel maa ngi ñëw yaay ci écho bi Amina nee na may xool li wax waaye xam naa ni ci sama biir bi am na luy wax ak man yaayu pareel maa ngi ñëw Cheikh Amina nee na ma jékki ba ci yàgg mu ne ko yaay ñaari laa fa ngi ñëw sàdd ay laaf yu weex lañuy doon bu ñu dugg ci néeg bi damay bañ yaay nga yuuxu xam nga lu leen di indi dañuy bañ nga yëg mat bii safaaru ndeyjoor lay laal yaay bii safaaru càmmoñ lay laal cheikh yaay bu ñu yegsee bul yooxu bu ñu laalee safaar yi ñoom ñaar ba mu mel ni kilim dañuy dajawaat dellu lama ataha allazi yati nisaa raat janaaxa tayri nafaha lama hala min jusumi nee ma toog ba ci yàgg mu déggaat yaay pareel yaay am na ñaar ñu jigéen ñuy ñëw yaay yaay pareel borom dëkk bu tedd bi seex yaay pareel maa ngi ñëw ne yaayam naan ko lu xew mu naan ko yaay pareel maa ngi ñëw yàlla yónni ñaari uurlu ay nii seex ñu bàyyee ko aljana nit jëpp taxaw ci wetu yaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii taxaw ndey joor kii taxaw càmmoñ kenn ki di asiyatu jabaru firawna kii ci des di yaayu muusa yaayu aysa nee na ñu taxaw di xaar na bi ne ci biiru ndayam nan ko yaay pareel maa ngi ñëw amina nee na seex duma tëdd ci lal bi jël mbalaan mu weex lal ci sama kaw nee na foog ni fi doom di jaar fala la njool ma kay jaar cheikh na bi nee na yaa ji parel maa ngi ñëw Amina nee na ma tàllal sama ñaari tànk di ko xaar mu yegsi mais mhm. mu naan ko yaay du ma jaar foofu doom bu ñëw day jiital boppam mhm. yaay pareel maa ngi ñëw Cheikh Amina nee na ma tàllal tànk yi xaar rasulullaay sat bu nee na ma jékki ba ci yàgg gis deer leer gu déparé ci kaw asamaan si fëq toiture bi ci biir néeg bi Amina nee na ma koy xool waaye jàkkaarloo nag ñaar ñu jigéen ñoo xam ne mosuma leen a gis ci taar li ñu rafetee ni ñu ma a dara ak niswatun qad qulna asiyatun wa bint imrana tiikil xuuru laa tekimi yaay pareel maa ngi ñëw amina nee na ma toog ba ci yàgg dégg leer gi amina nee na leer gaa gi ñëw may xool yonent yàlla muhammad foog ni bopp lay jiital amina nee na mu naan yaay pareel yaay maa ngi ñëw cheikh amina nee na may xool foog naa ni fi nabi di jaar fi doom yi jaar lay jaar mu naan ko yaay pareel maa ngi ñëw Amina nee na may xool nee na jékki ba ci yàgg ñu ibbi sama jumbux bi nee na bi naan ko yaay pareel yaay maa ngi ñëw Amina nee na sama jumbux bi leer nañ nee na ñu puus li ma ci sama kaw Cheikh Amina nee na mu naan ma yaay pareel maa ngi ñëw amina nee na ma foog ni bopp bee ñëw amina nee na mu naan ma yaay cheikh nabi pareel maa ngi ñëw amina nee na may xool sama doom ji foog ni fi doom di jaar lay jaar amina nee na mu naan ma yaay maa ngi nii di génn amina nee na may xool rasool jékk ba ci yàgg gis sama jumbux bi ibbeeku maa ngi gis tànku nday joor bu ndaw rafet lool weex tal nee na di jaar ci sama jumbox bi di génn tànku ndeyjoor bi cheikh mu naan ko yaay pareel maa ngi ñëw Amina nee na may xool tànku ndeyjoor bi muy génn ci sama jumbox bi nee na may xool rasool nee na mi ngi ci benn ñu wax ak man naan ma yaay pareel maa ngi ñëw doom bu musa gane àdduna cheikh la daan jiital waaye rasulaay li lay wan ni moroomu kenn ci àdduna naan ko yaay pareel maa ngi ñëw tànku ndeyjoor bi lay jiital cheikh njool màkk na ma di ko xool ba mu tolloog oom bi nee ci yàgg mu naan ko yaay mbaa yëngu ni samay cër benn doomu aadama du jàkkaarloo moom yaay pare maa ngi ñëw Amina nee na may xool sama jumbux gis tànku càmmoñ bi génn Amina nee na ma di ko xool nee mu naan ma yaay pareel maa ngi ñëw tànku càmmoñ bi génn Amina nee na ma koy xool ba ci oom bi nee na ñaar ñu jigéen ñi ma séqoon kenn ki di Asiyatu jabaru Firawna ki ci des di Mariama yaayu Isa Cheikh nee na ñoo téye ci sama bopp ñoom ñaar ñoo ma déewandoo ni ma mbaa yëg nga ni amoo droit xool li dee pare ci ay oomam ba ci biiram ndax lu yàlla bind moo ci gën cheikh na bi naan yaayam pareel yaay maa ngi ñëw amina nee na ñaar ñooñu ñoo téye ci sama bopp puus ko nday joor ma leen di xool ñuy puus sama bopp ma leen di xool ñuy puus sama bopp ba ma jàkkaarloo kaaba gi yàlla puus kiiraay bi ma jàkkaarloo kaaba gi di ko xool Cheikh Amina nee maa ngi gis kaaba gi muy jaayu ndax yàqamte njool màkka gane àdduna maalan ma miilan maal arkaani aw sajadat na yaayu na bi nee maa ngi gis ñetti drapeau yu rafet lool ci kaaba gi ñuy jaayu di xaar njool màkk gane àdduna benn drapeau bi liwaawul hamdi la cheikh bi ci des liwaawul karamati bi ci des liwaawul magfirati nabi naan yaay pareel maa ngi ñëw amina nee na ma jékki ba ci yàgg yëgatuma yaay cheikh nee na ma nelawtuma tëdd bi ma nelawee tuuti mu mel ni daa xaw a tàng nee na ma ni bërit jóg xool gisuma rasulullah ma xool ci lal bi gi suma sama doom amina nee na cheikh ma daw génn néeg bi ñëw ci baay maami nabi di ko ay am naa doom te gisuma ko abdul mutalib ni bërit jóg ni ko kañ am doom yëguma sa mat yëguma sa ëmb mu ne ko maam am naa doom nee na ñu daw dellu si ci bi cheikh nekk ñoom ñaar bi nu génnee yàlla boole nag rasulaay ñaar ñooñu ñoo ko yóbbu asamaanu benneel ci sango ba ca Medina ñoo ko yóbbu asamaanu ñaareel cheikh ñoo ko yóbbu ba juróom ñaareel ñoo dugal rasulaay aljana ñoo ko wan waa safara dugal def ko tusngal dugal ko néegu góor cheikh nabi am 32 ans bañ bu na laalul moromam yàlla ni wàcc leen ko laxaseel leen ma ko urus marjaan kii laa doon xaar mu yegg si ci jamono cheikh looloo waral guddi gàmm gi laxas nañ ko urus marjaan njool maakaa ngi rafet lool satbu ñu jël njool maa ko dugal ci néegu yaayam cheikh xam nga nu yàlla def rasulullah yi jël baaraamu nday jooru nabi bi dugal ko ci biir gémmiñam nabee ngi tàqamtiku meew mi génnee ci gémmiñ gi wa is ata kaana masruran yu xaalo wa makxuulan kama kaana maxtuunan bila alami cheikh nabee ngi ci lalu yaayam toog ma teraanga bu rëy yàlla dina naa la defal jaloo lay rëy yaay borom subhanallah yaay borom alhamdulillah yaay borom allahu akbar waaye cheikh xam nga lu neex ci dudu njol màkka gaynde day daw di dàq ji till di dàq ji till ci zuuru ngéntali ci zuuru juddu gi ba daje ak moom akolaat ko nday joor akolaat ko càmmeñ di ko tey kenn amul droit xuloo ñëpp dañoo war a bégee olof nee na yi ci biir géej lekkante looloo waral olof naan da ngeen di lekkante comme ay jën waaye du di jol màkk ju doo seex ngeen yi ci biir géej kenn ku ne boo demee bay seex sa morom da nga naan ko araam na ma tey bisu tey bi la njol màkk nga ne adduna kama sawaakinul bahri xat laa xam mi ne naa bi cheikh guddi gi njol màkk juddoo benn doomu aadama amatoo droit toog ñëpp dañoo war a jug màggal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa xul min al bidii mustahsanaati xiyaabun inda zikri tuluuri shamsi lam tarimi cheikh guddi gi kenn amul droit bañ a nuyu morom kenn ku nekk dangaa war a nuyu sa morom ngir màggalee ko yonent yàlla muhammad waxat talaqat wuxuusul xaafiqayni kama sawaatimul bahri xat laqat min an niami def ku nigi nii la demee woon ci rasulullah yàlla teral ko sat loolu maa ko gane àdduna sallallahu alayhi wa sallam xaalixuna suuratina faxawa kulla karamaati cheikh ni la nabi gane àdduna sallallahu alayhi wa sallam waa jàngoog borom naxkangoog borom medina ngoog sat bu loo wax xayrul anbiya kenn gënu la way wi way wi yaa ko moom Mustafa waaw waaw فقدت عيني واو خير خلقه لا كن جن لا وأكمل من كلم تلي دين شاء yàlla la setal waaw waaw borom ku diggee nga Madina waaw kenn gënu la ka annaka xaqulita kama tashaaw sayyiduna Muhammad ngeen gi yónneen waaw waaw borom ku diggee nga Madina kenn gënu la

kenn gënu la ku la wara seydina muhammad waxaun zatnul wara seydina wara seydina muhammad rijaleene gen genola yaani xawayna be waaw almimu rasul wara sayyiduna muhammad waqa un zadnu wara sayyidina muhammad wa mimu badnul wara سيدنا محمد وتعال رجلين دنجن الله خير الورى ولا نعونا ni la jëndi la màggal rasulallah doomi amina den gënu la Cheikh Saad Bou nee na ahlan bi saaril mawlidi shahru nabi lam gede mami sëri ba dara den gënu la mami sëri saaya dara borom nga ma ngeew mami si at mi ni mami babada na launa mami badal badal badade gen genola wala ñaawal na waawa aca mbooloo mi ana ki fi gën a bëgg rasulillahi jógal ñu màggal nabi ana ki fi gën a bëgg rasulillahi jóg ñu màggal nabi na ki fi gën a bëgg rasulillaay dig leen ñu màggal na be borom gam mu geen law na kenn gënu la ki fi gën a bëgg rasulillaay jógal màggal nabi borom gàmmu géng Madina kenn gënu la xayrul wara wa kenn gënu la ana ki fi gën a bëgg rasulullah loxo ca kaw ndeysaan lay lay la la man yan nabina la sarafa ana ki fi gën a bëgg rasulallah yi loxo ca kaw lay lay la la man yonent nabi naa la Sara Faye na na naay mani yonent al Mustafa mooy ki ñu teralee wax leen na bi naa xaat yee ba ñëpp di nalaw Hello. loxo ca kaw Mustafa jàppale yow rasulala Mustafa nana daraba duma denc la way Seydina Muhammad xayrul anbiya Mustafa الهدى يا رسولنا متبع نالا ترقى أسعد باب أنه حقا ممكنا يا رسولنا مصطفى sallallahu ko ko moom tabala balee ci ñaari seconde ndax gëj ndax moom yi moo leen ko dàq xam naa ñu tëjee ko ma sañoon daal ñaari seconde yi xam nga ñee ci suuf dinañ ko kii. loolu doon na neex a oustaz mais xam nga fi mu doon nii temps bi jot na. te xam nga euh, Cheikh Saad bu Samb. Euh, bu jógee fii mi ngi ci yeneen i gàmm. te xam naa moom it dinañu wax exactement. fan lay gàmmu ñu daal di fa yebal seen TV. ñu indi caméra yi jël ko. parce que moom soppele ci kër gi. te dafa bokk ci kër gi. ni ko réew mi soppee ñun ni ñu ko soppee yaakaar naa moo ëpp. Eh, Cheikh Sadbou Samba kontaan nañu trop trop ci jotaay bi nga xam ne may ñu ngi ko tey. ci yóbbulu gàmmu waaye ci spécial gàmmu xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggoog téléspectateurs yi. wax ñu fan ngay gàmmoo ren ñu mën na fa fekk rek indi caméra yi incha allah. incha allah Cheikh ah jërëjëf ñu ngi. ñaanalaat rek sunu baay Cheikh Mbaye Ndiaye Samb. amiin ñaanalaat sunu wéju bu jigéen. Euh, ñaanal sunu wasila Chérif Alwali yàlla bàyyi ko fi. amiin yaa rabbal alamin fa tabaarakallaahu ñaanal it groupe yi ma àndal. Euh, di jox ñëpp rendez-vous rek incha allah fi ñuy mottalee gàmm gi mooy ñun gàmm gi commencé nañ ko bu yàgg. barki démb bi weer wi feeñee laa ànd ak sama benn xaritu policier Babacar ku bëgg yonant bi. mu foto ko. yónnee ma ko. ma estati ko commencé nag gàmm gi. waaye xam naa buñ ne suba la bés bi muy vey gàmmu ca Tiwaawan buntu kër Cheikh Yérim du Mbaan mu mhm. muridu Cheikh na Cheikh Saddu di taalibe Cheikh na Cheikh Saddu mhm. foofa la euh, fanaan bégal sunu yaay Adja Karo ak njaboot gi yëpp ak doomam soxna Anta njaboot gi mhm. bu ñu fa jógee ñëw cees ci bëccëg gi euh, bégal sunu njabootu Baye Maysa Ndiaye bu impôt ak euh, Adja Kumbali seen tàkkusaan googu buñ fa jógee ci guddi gi noonu la ñuy continuer bésu gàmm bi dem Kébémer wala ngumba ngeewul ngumba la ñuy njëkkee euh, ca tante bu mag ba ca baas ba euh, di kër shérif alwali maana Ndiaye xalifa ba shérif ba ay dara ak ay rakkam ak mbooleem surafaaw yi foofa la ñuy daje ñu nekk foofu ba guddi gi xaaj ñu bàyyi fa sunu mbokki tàggkat yonent yi dem eggale li ci des Kébémer buntu kër Cheikh Mouhamadou Jimbira ndax sunu baay foofa la daan nekk di di tagg yonent bi fa la jànge fa la yaru kon nag kóllëre googu la ñuy dem di ko li foofu incha allah programme bi daal mu ngi noonu incha allah ci gàmmu gi bu ko defee lendemain gàmm nag ñu nga buntu kër Idrissa ah bégal Chérif Alwali foofu raxas bi foofu la su landeme ñu dellu si Ndakaaru kon daal semaine gàmm gi yëpp mhm. ñu ngi jox ñëpp rendez-vous incha allah incha allah bu soobee yàlla jërëjëf Sadbou Samb mhm. moom moo nekkoon suñu gante ci yóbbulu ko euh, spécial gàmmu gis ngeen wax na programme bi nga xam ne moom la fas yéene def incha allah ba bisu mawlud nabi ak lendemain bi incha allah soppe ya xarit yeeg am di jàmm yi ah, nañ ko topp waaye tamit nañ ko ñaanal bu baax a baax a baax yàlla guddal fanam yàlla wéral teram mu yàgganoo yàgg yàgganoo gunge yàlla na dund ba am téeméeri at ak fukk ak juróom benn gu ànd ak wér ànd ak kattan ànd ak daraja ak martaba ak wilaaya Oustaz Mouhamed Mbaye Jamil li moo doon guddik yóbbalu gàmmu kontaan nañu ci tabaarakallaahu ñun itam euh, kontaan nañu bég nañu xam nga moom mooy sama xaw ma nu ko tubaab di waxee mooy sama inspiration. mooy sa préféré. waaw moom bu ma jàkkaarloo ak moom daanaka euh, day mel ni dañ may ibil bunt rek. ne ma waxal ndax cofeel bi dox sunu diggante ñun ñaar mm-hmm. nuyu Cheikh Sat bu moom itam ñaanal ko ci disponibilité bi seex damay dégg sama baay bu baax bi ci Fass sëñ Ahmada Si Jamil nee na bu la yàlla diisalee nga bëgg diis topp ci kenn dootu la attanati mm-hmm. waaye tabaarakallaahu buñ ko woowee mu bàyyi lépp lu muy def doxal cofeel boobu sa diggante ak moom sama diggante ak moom di tëje sama nuyoo rek ci euh, xalifay Serigne Babacar Si xalifa Mame Malick Sall xalifay Seydi Jamil di Serigne Mansour Si Jamil mm-hmm. di sunu baay di sunu Serigne nga xam ne nag mooy xalifa sëñ Babacar fi mu toll demee ca burdu ba rawdu sëñ Babacar si ca jumaa ja moom mooy di e, jiite e, njabootu sëriñ Babacar gi fa nekk yëpp ñaan yàlla mu sàmm ko aar ko e, dem gàmmu ci jàmm si ci jàmm ñaan yàlla yiwu yonent bi yàlla ñu gunge ci bismillahi rahmaani rahim si ñu ñun ñëpp ci kër yi ci barke alhamdulillahi rabbil alamin ci barke yiw boobu Sénégal am stabilité am jàmm dund gi neex mm-hmm. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi kontaan bu baax a baax ci yow oustaz Mohamed Mbaye Jamil di kontaan ci téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi topp di topp programme bi continuer leen di wéy di ñu suivre dala dara du leen rëcc ci gàmmu gi incha allah wala boog ci gàmmu yi am ci Sénégal gépp may gërëm bu baax a baax a baax Modou Faye musli couture bi nga xam ne moom moo ñu ñawal lii ñu sol numéro téléphone am 77 la 531 01 01 fu ngeen mën a nekk ci àdduna bu ngeen ko woowee mu ñawal leen ko yónn leen ko ak fu ngeen mën a nekk rawatina ci gàmmu gii ñu mal donc programme Sen TV dafay wéy ñu ngi kontaan bu baax a baax ci équipe technique bi yëpp Pape Diène équipe technique bi ñoom Chérif Thiam kullim da ngay jum caméraman yi preneur de son yi jërë ngeen jëf ñu leen di ñaanal Mawludu Nabi boo xam ni kenn dootu ko wuti waaye Mawludu Nabi boo xam ni fa la di nangoo ñaan yi fa yàlla di wéralee jëmm yi fa yàlla di naataale naata naataala